yéen kay ñand cëkk Baba Ndiaye mbaa yéen a nga ca tous contre Amadou Ba bés bi le jour na coalition Yewwi Askan Wi kay dañoo mel ni cuisinier sart boo xam ne kenn du song sa morom kenn du attaqué sa morom ginnaaw campagne bi door ci réewum Sénégal te mën nañu seentu nag alliance wu rëy bu demee ci deuxième tour élection présidentielle yi lé ci 2024 gi bés bi le jour ne candidat coalition Benno Bokk bi di Amadou Ba ma nga woon ca Mbàkke ci ñaareelu fanu campagne bi amal fa meeting bu rëy laa lay wax mbooloo mi jóge fu ne dikk nag ci meeting bi foo sànni mbàtt mu tàkk yëgle kaay kay réussir na dëgg pari mobilisation yi ndax Macky daal nee waaw moom premier ministre Sénégal boon doon candidat coalition Benno Bokk Yaakaar bi nag nee un million xëy lay jagleel réew mi yëpp lay wax le soleil ne Amadou Ba kay yemo ci loolu rek ndaxte nee na wàllum ndox mi tam dina ko matale dëgg ci dëkk bu tali bu Touba ak Mbacké ndax dina fexe dëgg ba askan wi tàggale ñàkkum ndox mi ci Touba foo souveni moom Amadou Ba kay nee na xelam dal na ci lu mu ngi démb ca Mbacké bi ba tax mu ne daal wax ji fee ndam li féete na boor ba noppi ci élection yu lee jamono jooju na coalition Diomaye président ma ngay doxal bu baax a baax ci banlieue bu Ndakaaru capitale bu Sénégal ndaxte Birame Souleye Diop ak i naataangoom amal nañu kon caravane wu rëy ci banlieue bu Ndakaaru te lañu gis démb ci banlieue bu Ndakaaru moo tax boobu ne moom Birame Souleye Diop ndam li daal féete na seen boor ci premier tour yi ca Kaolack Mamadou Lamine Diallo daal njiital tekki ma ngoon démb ca Kaolack dikkat na bu baax a baax ci solos xorom si ak gerte gi moom sax nee na dina samp usine woo ne dina fexe dëgg dulal siin ak Saloum Cheikh Tidiane Dièye ne ñàng meeg ñaangali bi daal la fas yéene xar tubóyam dëgg laa lay wax nii ginnaaw éducation morale ak civique gi mu ne daal obligation a ndax moom Cheikh Tidiane Dièye bi li gën a am Sénégal gi bokk na ci ressources spirituelles yi ak moralu askanu Sénégal gi gépp ndax loolu daal mooy tax ñu mën a dund ci jàmm libération Thierno Alassane Sall kay moom nee na bëgg-bëggam dëgg daal mooy fexe suxali réew mi jaare ko ci mbay mi ci santé bi fexe nag wàññi bu baax a président bi waaye itam taxaw askan wi ba ñu mën a gis seen bopp dëgg ci ressources naturelles yi moom tas kay ma nga woon démb ci Medina fa la fësale programme moom dëgg laa lay wax ni ndax dana ne itam bëgg na daal wàññi bu baax doole président bu Sénégal rawatina jëm ci nomination yi ak nañuy gisee dëgg ni nguur gi di doxalee jël loxoom dugal ko ci wàllu justice bu Sénégal ak assemblée nationale daal ni muy doxee moom Thierno Alassane Sall ci libération ne ay dirigeant defeyant kon moo sóob réew mi ci guddi gu mu nekk waxtu wi Déthié Fall ne bëgg-bëggam laa lay wax ca Saalum nekkoon nag nee na daal bëgg mooy fexe ba ñu am waaye tamit li jënd jafe-jafe askan wi saa wu Sénégal Anta Babacar Ngom ci Les Échos nii li may laaj dëgg kay mooy fukk ak juróom-ñetti candidat yi ñoom ñëpp nañ wax kenn ku ci ñoom ana la def ci mooy boobam fii ci Sénégal moom Anta Babacar Ngom daal yamu ca ndaxte nee bëgg-bëggam mooy réew moo xam ne xam-xam daal moo fii bal ba tax mu ne ñàng meeg ñàngale mi daal léegi day doon obligatoire waaye tamit gratuite diggante trois ans jàpp seize ans l'info ne Aliou Mamadou Dia ma ngi woon démb ci banlieue xam ne daal amuñu fi nijaay amuñu fi bàjjen moom candidat bu pur bi daal yamu ca ndaxte nee na nag ma ngay sàkku ci askanu Sénégal gépp ñu dem jëri seen carte électeur ngir ñu mën a dem ci bañ gàcce ñaar fukki fan ak ñeenti ci weeru mars gi def tànneef gi gën ngir mu mën a doxal programme bi mu samp ci Sénégal le temps moo ne campagne bi kay gaay ngir digg rek laa lay wax ni ndax fukk juróom-ñetti candidat kay ñoom ñëpp ku wax jox sa morom mu diggee santé éducation ak nité wàllu kaaraange gi culture ak religion ak environnement moom njiital kama 2024 ma ca Pikine ak directeur de campagne bi Arona Coumba Ndoffène Diouf ak mboolemu coalition kama ñoom ñëpp fasee seen mbégte dëgg ginnaaw teere guñ leen defal ci banlieue bu Ndakaar rawatina ci Pikine fana xam ne ne capital administratif bu Sénégal da koy toxal Ndakaar yóbbu ko ba Thiès kaay bee ndëkk ñaari gaar teg ticket président ak vice président ak gouvernement boo xam ne fukki ministre ñoo nekk ñaangi meeg ñaangi mi doon gratuit ci tout tànk yi bàyyi na Amadou Ba de bàyyi na Amadou Ba de yëgle kaay moom njiitu réew Macky Sall kay daawoon ginnaaw Amadou Ba ba noppi dem ci buun jonn ndax gaa yi ngay manœuvrer bu baax a baax moo xam ci waa APR ba ci waa coalition Benno Bokk Yaakaar yi ngir wan ginnaaw du muy Amadou Ba dem seeti buun jonn waaye daal am na ñoo xam ne nee nañu bëgg-bëgg bi ànduñu tey àndu ci ëllëg ay waay lii tamit mbaa jàmm la ba ci Karim Wade Ibn Abdoulaye Wade sax gaa yi koy seeti ngir mu jàpp ci projet bi ba noppi fësal jàppaleem jëm ci buun jonn laas ni buun jonn ma nga ay bakaasam ndax intercoalition bu rëy la bëgg a fii ci réewum Sénégal jëm ci élection présidentielle yi lé ci 2024 gi les économes moom buur jonn kay nee na bëgg-bëggam dëgg mooy samp ngir ñu sàmm démocratie bu Sénégal ci géejawaay ga mu nekk la woo gaay mi yépp ngir ñu ñëw fekk ci coalition Dionne ngir sooy réew mi ba noppi muccal ko ci fitna yi jaabaa ci réew mi waaye fexee tamit réew mi daal am dal ginnaaw fitna gi jax-jaxi ci réewum Sénégal malal jàllu picc ci libération ne maa ngi woo 19 candidats yépp ñu woote jàmm ak dal ci campagne bile le ndamu responsable APR jële ca rekoo bi nee na la muy woo gaay daal mooy ay débat di ñu teg ci suuf kurpeñ yeeg jaas yi ak fitna gi ginnaaw nag moom Malal Diallo picc bu mu delloo njukkal bu baax a baax jigéen yi nekk ci commune Djiddah Thiaroye Kaw gépp la lay wax alerte Quotidien maire bu Grand Dakar Jean Baptiste Diouf fekk dina xalifa Sall borom coalition Khalifa président yëgle kaay bi ne maire bu Grand Dakar kay Jean Baptiste Diouf delluwaat na këram taxaw Sénégal ba noppi diggé renfort Khalifa Ababacar Sall vox populi ak libération ne matériel bi yëpp gaay ngi koy yóbbu ci mboolem doon ci ba ci jëwrigu ñu dénk wàll bureau mi karangeeg Mamadou Makhtar Cissé moo ko daal di xamle ne matuwaay yëpp ministère bi jël na ko ngir élection yi daal amee ci daal le Quotidien ginnaaw daal moo doon jax-jaxi ca Pikine rag woo xam ne mu ngi dox diggante Pastefien yi ak waa Amadou Ba yi yëglekaay bi ne jaas yi mbol de yeeg paaka yi kay lépp doon jalaañoo am na ñoo xam ne kon am nañ ci gaañu-gaañu ak koo xam ne waxtu wi daal bakkanam ci xootu gerte Dieng Pape Modou Fall directeur de l'emploi sargal nañ ko niki barke de moo njaay ca Jurbel te digital Bawol daal moo fa jaar occasion boo xam ne moom président dëgg moo wóor saisir na ko ngir woo doomu Jurbel yëpp laa lay wax ne seen diwaan wi ak seen gox wi ngir dëkk yi mën a suqali ndaxte nee am lu bëri xam ne des na ci Jurbel ñu bàkku jëm ci lamb ja sun lamb yëgle kaay mel ne jàkkaarloo Bombardier ñoom ñaari gaay daal ku nekk ngi jébal boromam receveur tata bi ma ngay dikkaat bu baax a baax ci li xew ci feneen 3 bi agression bi ak koppar gépp gënu yóbbu mais da ngay seet loolu rek